Gora Khouma maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame. Gora Khouma nga nekk euh, secretaire général de l'union de routiers du Sénégal euh, fi ñu toll nii nag di euh, d'ici fin juillet ñu ngi wax waxu état généraux des transport mu nekk initiative bu état bi naka nga gisee mbir mi. waaw xam nga état généraux ministre moo ko waxal boppam fekk nag nekk na loo xam ne li yàgg soxla la ñun ndax jàpp état généraux mooy ñu toog ñun ñëpp. pour kenn ku nekk waxtaan ci wàllu transport ki moom oto bi ki ciy dugg ki koy dawal ki koy contrôler ñëpp daal chaîne bi yëpp ñu toog ci table waxtaan ut solution te bu amee ci solution ca loola ñu mën kaa a appliquer loolu moom jàpp naa moom waxoon na ko ne dina ko mois de juillet bi léegi may occasion rek pour ñu ko rappeler ko mu bañ a tëb mois de juillet fekk ñu ngi ci jamono nawet si nekk bu tëbee mois de juillet rek dañ daal dugg dugg ci biir nawet bi kon état généraux bi dootul maanaam amati te ñun dañ xam naa ne moo ko waxoon ma nga ca loolu daal lu jàpp nañ ne daal lu lu am farata la. donc si état généraux yi euh, bala ñuy ñëw sax si état généraux yi gis nañ ay transporteurs déposé benn mémorandum ci tableau député yi naka nga gisee aussi mbir moomu. mais loolu dafa am solo parce que xam nga transport bu amee mémorandum jox ko jox ko les parlements mais parlement yi dañoo war a am eh, eh, dañoo war a di di am xam soxla yu sénégalais yëpp te sur des transports ay sénégalais lañu kon bu fekkee ne am na bataaxal bu ñu buñ dëpp jox. buñ ci recensé problème mu euh, transport jox ko le parlement mu jox ko mais loolu rafet na te te luñu man dañu lu ñu tàccu la lu ñu yaakaar am yaakaar aussi la mais man li ma gënal rek mooy euh, tey jii lan moo nekk seen euh, préoccupation majeure maanaam li leen gën a soxal loo xam ne su ngeen demee di ngeen ko aborder ci état généraux yi aussi di ngeen bëgg état bi indi ci ay solution nu mu gën a gaawee. waaw xam nga état généraux bi ay points yu bari lañ ko waxtaanee mais li war a jëkk waxtaan mooy ñu appliquer la convention collective déclaration i kenn surtout sax ci travailleurs yi parce que travailleurs yi dañ kaa soxla lool war nañoo mën a renouveler parc bi aussi transport de marchandises transport de passagers ñooy yëpp dañoo war a renouveler waxuma renforcement de parc nag mais renouvellement parc renouvellement ak renforce bokkul renforce mooy da jënd oto bu bees dolli ko ak oto yu màgget yi mais bu dee nag renouvellement la oto yu màgget yi lim ba ngay génn ci oto yu màgget moom ngay dugal ci oto yu bees kon loolu moom dafay am day am am solo beneen bi tamit mooy wàllu contrôle routier yi ñu wàññi post yi comme ni ko UEMOA ak CEDEAO waxee euh, def ko trois postes de contrôle frontière ba Dakar foog trois postes de contrôle te poste yooyu nekk poste groupé maanaam famille bi ñu contrôlé yëpp muy ministère des transports muy muy muy muy police bu région de police la. muy douane muy eaux et forêt ñooñu ñëpp ñooy bokk point de poste bu dee zone gendarmerie tamit gendarmerie euh, eaux et forêt douane ñëpp ñuy wax ci wàllu ñooy bokk benn poste nga xam ne bu oto bi ñëwee ñoom ñëpp a koy xool bu baaxee dem bu baaxu taxaw loolu les postes loo xam ne du bari contrôle bi du bari te am am a bu bari te benn njëriñ wàññi contrôle bu am njëriñ moo gënal sénégalais moo gënal contrôle routier yi bu def ay aire de repos yi bi kat tamit diggante Kidira ba hmm. Dakar diggante Matam ba Dakar diggante Guinée Bissau ba Dakar dafa miti te doo am fenn foo taxaw loolu tamit il faut que ñu xam ne ay aire de a am oto bi di noppalu euh, ki koy dawal di noppalu loolu dafa bokk na ci li a waxtaan ci ci euh, ci ci que tamit bu ñu waxul ci loolu assainir secteur bi aussi ñi nga xam ne amuñu droit di ko def def transport ñu génn leen seen loxo bàyyi ñi nga xam ne am nañ droit def transport ñooñu de de liggéey beneen bi aussi war nañu waxtaan ci. tere gi ñu tere oto transport daw guddi nañ ut yeneen solution dañ bàyyi transport ndaw 24 heures moo jaadu transport kenn amul ci benn loi bu mën a wax ne heure bii la war daw ak heure bii c'est pas normal dañoo war daw 24 heures sur 24 lenn nag mesure yu war a mën a jël nag nañ ko jël mais li nga xamante ne moom mooy circulation bi 24 heures sur 24 la war a daw beneen bi wàllu tarif war nañ cee waxtaan tarif ci ci nga yeb di ka laaj paas war na am tarif ci diggante bu mën di camion bi dafa war am tarif ci tonne bu mu yeb bu nekk même transport de bétail daa war tarif yooyu yëpp gouvernement war na ci toog ñun waxtaan bañ génne ñetti tarif tarif boo xam ne bi paas la nit moo ci paas ak boo xam ne la boo xam ne bi bétail la muy jur gi yooyu yëpp ay tarif la ñu war a teg waxtaan ci ba jubóo ci di ko ku ko violé ne ñu soog a xam ne yow da nga kaa da nga kaa da nga kaa violé waaw man loolu loolu moom bokk na ci ak multiplier centre visite technique bi centre bi nekk Yaraax war naa mën a nekk ñetti centre ci Dakar te région bu nekk war nga am centre moderne bi ñu jëlee fi système du gel bi ñëpp bokk centre bi loolu d'accord naa ci waaw. Euh, Gora Khouma euh, aussi wàllu modernisation secteur transport tout le temps dañ koy wax pour yow état bi naka la mën a doxalee euh, pour ñu mën a moderniser mbir yi bu baax a baax. xam nga état waru jël ñaar dërëm di jox kenn ñu bari dañu jàpp ne ñoom Gora Khouma bu ñuy wax renouvellement dañoo bëgg oto état du ñu jël oto oto état du jël kenn oto. état dafay garanti bailleurs banque yi ñoom ñooy financé mais banques yi dañoo soxla garanti ci état mais banque bi mooy joxe ne la da may jox dañuy waxtaan ci oto bi ak ay état xam ne oto bi lii lay jar traite lii la donc ku ci dugg fay say bor dem sa yoon dem sa yoon loolu rek la moo sa doon te ñu bari rek day ñu nu mu demee nag naa ñoom góor xam li bëgg mënu nekk état du leen jëndee oto ñu war a jënd seen bopp oto non non non non état dafay garanti mais bailleurs yi ñoom ñooy financé. loolu nag état moo ci war a jëmbat fulla parce que réew yëpp loolu la ñuy def am transport bu moderne moderne mais Sénégal tamit da ko war a def transport bu moderne ay capacité bu yaatoo yaatoo yaatoo ci transport de marchandise comme transport de passager. Mm-hmm. Euh, Gora Khouma aussi gis nañ ci période tabaski bi doon nga kaas lu baree bari euh, le fait que ministre du transport euh, Malick Ndiaye jëloon mesure pour xeex pass yi ñu yokk ba utiliser bisu Dakar dem dikk yi wala Sénégal dem dikk yi lu waraloon ngay waxu mbir mi. est-ce que mën nga si ñëwaat rek xam nga tari Sénégal ministre bi mu ñëwee dégg nga ji ku wax waxu bétail maanaam jur gi tabaski dañu si dugg kenn ku wax waxu jur gi puisque premier ministre dafa fexe ba ñu toog ci ñu waxtaan mu jubóo ci tarifu wàllu transport de bétail ñu jubóo ci moo tax ñëpp appliqué ko kon transport de passage tamit da war am tarif boo xam ne bii day ko fa mais boo déggee ñu naan dañ ko appliqué mais depuis deux mille dix huit ba léegi ah. Mm. deux mille deux mille huit ba léegi amul tarif tarif amu fi tarif amul Sénégal kon bu kenn wax ne da ngaa yokk ba da ngaa wàññi dañuy fexe ba tarif am fi. tarif moo fi war a am ci transport de passager ci transport de marchandise ci transport de bétail tarif moo war a am ñu signé ko ne tarif bi la boo kenn jaar damay loo xam yokk da ngaa ku ko wax da ngaa wax loola neex rek beneen bi mooy ministre bi c'est le ministre de la république mais du ministre Dakar léegi moom jàppale rek le problème sénégalais yi mais rek la wul problème sénégalais yi parce que Dakar sax rek lu seen problème danaa am na benn parti ci Dakar rek la naa mais sénégalais bi jógee Ziguinchor di dem Ndar di dem Ndar. mais musique jox ko kaar ki jógee ki jógee Ndar di dem euh, Tam euh, Tamba musique jox ko kaar te ay sénégalais la kon loolu réglé wul problème bi gis nga xeex bi amul benn njëriñ toog ci taabalu bu fexe ba dara am fi ñu ne lii fi am na bu ko kenn violé moo am solo mais buñ naa musique bi génn na kaar yi réglé problème sénégalais non une partie de Dakar ren jii tabaski bi terewul suñu kaar ñu ngi départ de Guédiawaye di départ de Pikine di départ fu nekk ñun dañoo liggéey dañoo bàyyi kaar boo marché dem liggéey feneen dem liggéey feneen te liggéey nañu. mais li gën mooy xeex bi amul benn njariñ maa ngi dégg seen morom journaliste yi naan ministre bi dina ko defaat ci Touba ji non ministre bi du ministre du Dakar hmm. ministre sénégalais la xeex bi amul njariñ ci ñun amul njariñ ci moom jàmm mu ci lañ mën liggéey ci lañ mën liggéey moom mais moom tamit ci jàmm la mën a liggéey yaakaar naa toog ci taabal waxtaan bu jiboo ñu ne tarif baa ngi nii boo ko kenn romb mais bari na ko naan tarif tarif tarif te tarif amul Sénégal hmm. depuis ba léegi tarif amu fi amu fi amu fi kenn du ma ne am na fi amu fi Euh, Gora Khouma naka nga apprécier li ñuy laam-laame ne boo moytul dina am mooy euh, laajum visa pour dugg ci réew yi di AES di euh, Burkina Mali ak Niger en tant que transporteur bu fekkee mbir moomu appliqué nañ ko lan la mën a jur seen côté surtout. waaw kaw mën a dinañ ko appliqué maa ngi dégg rumeur bi nag mais ñu ne dañoo am ci Afrique ndax organisation ICRAO man maay vice président bi. CEDEAO mënul def dara ci transport sans ñun wax ak ñun parce que ay cër la ñuy jox UEMOA tamit la même chose gis nga loolu yàlla tere yàlla bu mu am euh, te boo amoon tamit même ñi nga xam ne ay ñi nga xam ne dañoo génn CEDEAO loolu arrangé wu leen ñi resté CEDEAO tamit loolu arrangé wu leen parce que ce sera un malheur transport warul am nationalité transport warul am frontière pour que mu amal njariñ ñëpp mais bu ñu demandé woon visa mënul nekk sax dafa mënul loo man mi xam Afrique dëgg-dëgg ni muy doxee mënul lu mënul nekk moom jàpp naa ne mënul et que génn CEDEAO taxul nga laaj nga nga laaj transport cheveri ay visa boo ko saay mooy transport bi boo kaw la transport li gën mooy de bout en mais bu suñu duggee ci visa arrangé wu ñeneen CEDEAO am nañ problème ñi gën a CEDEAO am nañ problème. merci beaucoup Gora Khouma ci tontu bi nga tontu suñuy laaj ñu lay remercier bu baax a baax. merci. Euh, Gora Khouma maa ngi fàttali ne yow yaay secrétaire général bu Union des routiers du Sénégal.